Bienvenue sur Salam Vision. Thank you. yaakaar naa ne tey jii. Mhm. ami internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne. Mhm. tey lii ñu fi indi. Mhm. mooy combat Balla Gaye numéro 2 Boy Niang. bi combat bi soree woon dañoo waxtaanoon ak. Alaaji Mara Niass. tey ñu dem ba lamb ji des ñetti semaine ñu ñëw ci Mara Niass. Mara Niass. <laughs> diggante Balla Gaye numéro 2 Boy Niang. lan nga ciy xool réew mi. sant ak gërëm di leen nuyu biir réew ak bitim réew. Euh, di nuyu askanu làmb di nuyu it ëhlu làmb di wax sëriñ Mara nee naa leen trois mois ci ginnaaw danaa ñëw ci làmb ji te dinaa ci saf sàpp noonu laa ko waxe woon ba noppi dama ne woon dinaa ñëw di leen jox ay date ñu yegg ci date yi ñu dundandoo ko ci kattanuk suñ boroom hmm? te lu ma leen ci wax bind leen ko denc te làmb ji nga ma laaj waaw <laughs> Euh, waaye gars yi nañ faju ji ca bañ a ndax nit ñi waaye. alaaj waaw ñaari mbër yi dafa am ku ciy jàmbat ndigg ci li ma gis te seet naa ko. man nag hmm? man nag samay wax damay wax avant nit ñi di laam-laamee te bu ñu doxee dañ ciy yegg dama ne woon làmb ji date bi ñu ko jàpp. le premier tiital naa ki tëgg làmb ji na ma baal. Gaston benk làmbam ji neewoon naa dafa tàng waxoon naa leen ko dëgg la doom ji mooy kan makan ne ko seen làmb ji nañ euh, euh, dat bi leerut te buñ forcé te buñ forcé ba làmb ji jàll ñi tëgg làmb ji nga baal ma yëf mën naa dal ci seen kaw te bu boobaa du doon lu gën nañ tojtal yàqkat yi nga xam ne dañoo bëgg a yàq bis boobu maanaam loo bisu Balla Gaye bi ak Boy Niang dafa am ñu ko bëgg a yàq te dama ciy tiital ki tëgg làmb ji. muy kan. muy Gaston mbeng moo tax doom ji bisam bi na ko fonk ndax damaa gis ñu bëgg koo yàq te même mbër yi da cee am koy jàmbat ndigg te bëgguma ñu tee koo bëre sénégalais yu ñoo soxor lu làmb nag dana yëngu dama ne woon làmb jii di ñëw dafa am lu ma ci gis ndax Boy Niang dafa am luñ ko digg Boy Niang dañ koo digg ndam ba noppi garantil ko ko ah. Balla Gaye dañ koo digg ndam waaye moom Balla Gaye ci boppam ndam li dafa lëndëm ciy bëtam du ñàkk gëm ne mën naa daan Boy Niang de mais fi mu nekk nii xelam dafa toogul te jiix jaaxa yi dafa bari ci moom te ne na tekk te newoon naa ko na nëbbatu teele bërë ci weer wii Balla Gaye ñi koy seetal nañ ko wax dëgg teel a gi dafa gënul woon ci moom mais sarax am na. lu bëgg wax. gi dafa gënul ci Balla Gaye waxoon naa ko bu yàgg làmb ji ku ne la mi ngi ci loxoy Boy ñaar actuellement nii. wala mi ngi ci loxoy Balla Gaye ci date bii nga baal ma waxu la dëgg làmb ji dara leeragu ci ci mama bii. làmb ji ñaata semaine a ci des. ñetti semaine da la damaa tiit ci ki tëgg làmb ji. man nag wax laa man junjulee ni mbir mais am na loo xam ne du ci yegg waaye làmb ji dalul sama xel lu làmb nag laay waxal ren làmb ji dafa tàng jër làmb ji dafa tàng jër. mais ki léegi. Euh, lan ngay dama ne la dama gis aw yaramam tawat ak jagade gu ci nekk joo xam ne làmbu ji la première bi dafa diis te neewoon naa ki ko tëgg na jóg def lu ci ay ñaan wallaahi loolooy dëgg bindal denc moo tax ma ne doom ja bu dee ak ay dimbale la na dugal loxoom ci làmb ji ba noppi seen dat bii le deux bee gënoon la trois bee gënoon la quatre bee gënoon première bi dafa lëndëm <laughs> maa la ko wax de nañu wax nit ñi dëgg di jox nit ñi dat yi ñu dund ak ñoom àggandoo ci ak ñoom waaw Pikine nee naa la nee la Pikine mm-hmm. ci diggante Boy Niang ak Ama Balde dama ne la roi des arènes daf ma fay xeeñ mas naa la ko waxa ah? <laughs> dara tuxoogu ci te lu ci tuxu ma wax la ko dara tuxuwu ci bi ci topp booy dafa am lu ma waxoon ci roi bi ñu bari di ko weddi waaw ma ne daa nekk ci ay guddeem yu mujj moom Mamadou Lo moom Mamadou Lo mi yor roi des arènes bi ndax damaa gis mu war a lëkkaloog ay nit ñu weex ma gis ko ci côté tali waaw ay procès yooyu nag daanaka day xaw a gën làmb ji buñ man damay gis nga ku yàlla bind ci senegal man maa la dàq seet bindalu denc moo tax làmbi Balla gay ji musuma tiit ci làmb mais dama cee tiit ba tiital promoteur bi léegi nag ñi ko jege nañ jóg ñu defi sarax ñu xool yoon wu ñuy jaar mais soxluwuma ci kenn soxluwuma ci cent franc yi kenn bu ma ci kenn woo mais li may wax moom ñoom xam nañ ko nan jóg defal ko seen bopp bu buñ bëggee seen bis bi réussir xanaa wax ji leer na. dégg nañu Alaaji Mara Niass ñu gis Boy Niang di préparer Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye di préparer Boy Niang. ba làmb ji des ñetti semaine mm-hmm. waaye ñoom ñaar ñëpp dañoo denc. Mm-hmm. kenn mënu leen a teg bët. <laughs> loolu borom digg li. ki ciy hmm? jàmman digg nee ko bu mu forcé waay. bokkal la. te yeneen blessure dana dekkiwaat ci làmb ji. buñ dàjjee sama baaraas bii ma teg. bu làmb ji jaaxee yeneen blessure dana feeñ ci làmb ji te boobaa ku teguwul lay ci taabal ji danaa génn ak sama kaan gi. bëgguma kenn bëgguma kenn kuy tegu lay bu boobaa yat wi dana génn ndax bëgguma kuy ku ku kuy forcer samay wax dama ne leen réew mi lu fiy ñëw ci kattanuk suñ borom mun naa koo gis ci kaw nag mu neex leen ma wax leen ko wala mu naqari leen <laughs> nga baal ma euh, nga baal ma duma leen ko wax ndax xam ngeen wax ju yegg dafa ko moom suñ borom sax dane yaa ulil albaab boroom xel yi laay waxal nan leen nangoo nekk nit li yàlla dem ki ki ki mën a gis nañ ko nangul ne mun na gis ki mën a ñaan ki mën a toj liggéey ki mën a dindi kortu mais kenn nekku fi ngir man lépp mais suñ borom man la fi teg ci jamono ji may gis lii ñëw heure bu jeexee ma dem tiit naa ci làmb ji bindal loolu nga denc ko ku gëm bindal denc dinañ ci yàgg yàggatul ku gëmul toogal nga déglu ma mbër mu ko ci forcé bu jeexee boo fi tegee lay ci blessure danaa génn kaan gi maa la ko wax de aw ma jot. Mara. <laughs> Mara Mara Mara Mara Mara combat làmb ji dafa tàng. gis naa ne sax. waa hmm. kër fas ci buntu kër ji dama cee gis ay dama cee gis bakkan xam nga loolu yombul làmb ji dafa tàng ci dat biñ ko date bakkan ci làmb man nag. tolluma foo xam ne damay wax nit moo tax euh, ñuy tëgg làmb nañuy seetlu ci bis yi gis nga bu ñuy xool ci wàllum xilmu nujoom ci bis boobu euh, bis ba dana mel ni lu féex sedd waaye day tàng jër lii man ma xam nga kuy dotee di topp di topp ba leen di wax bis ba na muy couleur danañ xam ne bis boobu bés la te budul woon dara ci bis boobu politique gu Sénégal da cee waroon a yëngu waaye am na kilifa yu mag yu jóg bëgg cee teg tànk maa ngi junj de. <laughs> jërëjëf. li ma gis ci réew mii. Hmm. bu ko ab tubaab doon gis dañ koy woo décorer ko. mais man mais man ci diggante Pikine ak Guédiawaye. Hmm. Boy Niang numéro 2 mën nañu wax ne xelam yëpp roi des arènes moo ci nekk. <laughs> waaw. Balla Gaye numéro 2 xelam yëpp nekkaat roi des arènes la ci nekk. Hmm. coow li nag bëri na ci diggante Pikine Guédiawaye le premier janvier. Mhm. ñaari gars yi tey jii boo leen doon ci ay sarax ku ci nekk yan sarax nga koy digal. ah li wér mooy euh, damaa bañ a joxe date ak dele bi te bu leen neexee ma joxe ko waaye damaa gis at moo xam ne ci ñaari at yi ñu jëm roi bi dafa am ci loxo yu muy jóge <laughs> dégguma damaa gis ruwaa bu bees senegal waaw bu dul Mamadou Lo damaa gis beneen roi de arènes ci Sénégal. waxuma ne day daan Modou Lo doon ko de. xam nga samay wax dafay lunku sarax si lenn la. la ca gën a fonk mooy date bi dafa lëndëm ci promoteur bi lëndëm ci ñaari mbër yi. ci première weer yi dat bi ci booy Niang leere bu leen ma wax loo. la sarax bi la ca gën a wér ñeenti tànk la te ku ci ëpp loo ñàkk làmb ji sarax bi ñeenti tànk la ku ci ëpp loo rendi di nga ñàkk làmb ji waaye làmb juy taxaw ak ju judul taxaw ju ñu ñàkk ak judul ñàkk nañ xool ci bis bi te ñàkk bisam bi te sàmm ko man moo ma ëppal solo nañuy wax senegal yi dëgg lii la lii la vidéo bi denc leen ko lu ci nekk danañ ci yegg ci kattanuk suñ borom na leen wax nit ñi dëgg làmb jooju dafa tàng. Alaaji sant ak gërëm di laa la wax dinaa fi ñëwaat nii laa koy toppee nee naa leen ren nee naa sëbëx ci làmb ji bu ma ñëwee da nga xam ne sëriñ si fi nekkoon di gis làmb gisuñu woon. Hmm. bu làmb ji gënee jege ci li ngeen wax jox naa leen di daje boo ñëwee mën na la di way daan ci kattanuk yàlla yàlla rek a man de mais yàlla day wane. nga ne bu lamb ji gënee jege. boo ñëwee mën na la di way daan ci kattanuk suñ borom yàlla maye na nu ne waay. jërëjëf. sant ngërëm na leen ëllu <laughs> làmb sama gaay yi. yaa ngeen jëf. sur Salam Vision.